بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي جلدي السلام عليكم ورحمة الله نجلين دي دلال جم ci keppaarug Ramadan muy suñu fukkeel ak daje ak ñett ci weer wu tedd wii di weeru koor ci suñu jataay bi ñu duppee sous l'ombre du Ramadan démb ñu ngi nekkoon ci mbir moo xam ni mbir mu tiitlu la mbir mu jara waajal la ca mooy li ñuy tudde yowmul xisaab mooy keroog bi suñu borom yàlla sante malaaka yi peese nañ suñuy jëf sant malaaka yi ñu réglé la nga xam ni mooy mbooli mi àq yi doomu aadama yi yorante woon te loolu it suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mosoon naa laaj sahaaba ya mooy yéen afa tadruuna mañul muflis ndax xam ngeen kan mooy ki perte ñu ne ko ah xam nañ ci day commerçant boo xam ni dafa doon jaay marchandise am daa di perte lam ko jaayi yiis lam ko jënde woon wala magasin ba daanu na Yonent bi aleyhi salaam ne leen déedéet aji perte ji dëgg mooy ki nga xam ne ñëw na yowmal qiyaama fexe na ba ay julleem mat ay koorom mat ay zakaat ak aj makka lépp mat na waaye nag lekk na alali ñee tuur dereti ñee yàq deri ñee yowmal qiyaama yàlla dajale ay jaamam ci moom ñuy jël ci tuyaaba yi di fay àq yi di jël ci tuyaaba yi di fay àq yi ba tuyaaba yi jeex ña nga xam ne ñoo des ñu jël ñoom seeni bàkkaar di ko xëpp waa ji jël seen bàkkaar di ko xëpp waa ji ba waa ji bi ñu xisaabee ay jëfam mi ngi bokkoon ci waa ajjana ñu wëlbati ko wëlbati ko boole ko ci waa sawara yal na yàlla musal ñi ci loolu looloo tax mbokk képp koo xam ne ragal na yowmul xisaab ngal la way moytul suñ la joxee kees am na contrôleur yi fa nekk inspecteur yi fa nekk waaye ngalla waaye xamal na ñooñu mën nga leen a njuuj njaaj ba génn ci waaye fàttalikul yowmul xisaab yow mii na nga nangoo jë bëgg a jël kërug jaambur ci neen fàttalikul yowmul xisaab yow mi liggéeyloo nit ki fayoo ko àqam fàttalikul yowmul xisaab ca mooy yow mi yàq deru nit ki fàttalikul yowmul xisaab babaa mbir yi di jeex loolu mbokk lu jara bàyyi xel la suñu borom yàlla bu xisaabee jaam yi ba résultat yi génn dana am nag benn natt bu mag boo xam ne nii it danañu xaar suñu diggante ak aljanna natt boobu mooy lan suñu borom yàlla subhanahu wa taala def ne biir sawara ñépp dañ fa jaar wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya suñu borom nee na ñun ñéppay jaar sawara loolu dogg naa ci mi ngi noonu digge naa ko dogg naa ci ñépp a fay jaar yonente ku dul yonent ah kon mbir ma naka lay demee yonente bi aleyhi salaam ne na muy demee mooy yàlla da ci gàll benn pont bu ñuy tudde siroot pont boobee boo delloo ca la nga xamee ne nii nettali nañ ko ku mel ne abi saïd al xudri am na xadis boo xam ne imaamu muslim moo ko solo nee na pont boobu day pont la boo xam ne moo gën a sew karaw karaw gi nekk sabab bi ni mu sawee nee na pont ba moo ko gën a sew ba pare moo gën a ñaw la nga xam ne nii moom mooy jaasi ca la doomu aadama yi di jaar pour jéggi dem sira kii nga xam ne mooy alxudayfa ibnul yamaan dolli ci ci beneen xadis boo xam ne muslim soloo na ko nee na ci côté pont bi am na ay crochet yoo xam ne ñooy lonk yéeféer yi di leen cëppeel ci biir sawara su ko defee loolee nekk dox bu sore sore sori doomu aadama yi di ca jaar yonente ya ak ña jaar fa neex yonent yi yal na yàlla boole ñu ca dañuy mel ne xëfe xippi romb rek gis ko gis seen sawara tiim nañ ko dem nañu ñeneen ñi ñëw mel ni ngelaw buy rëdd ñeneen ñi ñëw mel ni picc buy naaw ñeneen ñi ñëw mel ne fasu naaru góor buy daw ku nekk jëf yi nga jëfe woon temps bu toll noonu ngay dugg sawara am na ci ñoo xam ne nag dañ koy raam sawara di leen lakk ah siraat di leen xotti ba baa ñuy génn sawara soose moo am nit yeneen ñaari groupe benn groupe ba mooy yéeféer ya nga xamee ne ñoom ñooy ñooñu sawara keroog bañ ne tegg seen tànk ci sawara la leen crochet yi xëcc ñu màbb ci biir sawara ñooñu ñoom duñ fa génn xaalidiina fiiha abada mu am beneen mbooloo ñoo xam ne ñoom day niti ajjana lañu waaye nag crochet yi dañ leen xëcc ñu cëppeelu biir sawara suñu borom yàlla bàyyi leen sawara la ko soob ndax junni at wala téeméer wala juróom fukk ku nekk jëf ba nga jëfoon ba tax laa tàbbi sawara ñu mbugal la ci biir sawara jëf bu dëppoo boobu mbokk lii bu amee nag lañ leen doon wax démb nañu xam ne dana doon luy am yowmal qiyaama muy li ñuy tuddee ashafaa shafaa mooy ak ramm doonte ga ramm googe bokk na li gën a yàq diiney doomu aadama yi tey ak démb mooy ramm lu tax loolu mbokk ramm lu am la yowmal qiyaama ramm lu am la waaye ramm googe na muy demee fa la nit ñi amee la nga xam ne nii moom mooy juyoo junjoon naa la ko démb xamal ne ramm gi gën a mag mooy rammoog suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne nii moom mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala ngiree mu ñëw atte ay jaamam loolu moom la ñuy tuddee maqaaman mahmuda moom la ko suñu borom jalla wa ala di wax ni wa min alleyli fatahajjat bihi naafilatan lak asa an yabasaka rabbuka maqaaman mahmuda bu guddi jotee jógal di naafila mën na am sa boroom dëkkal la ca place bu ñu gërëm ba place bu ñu gërëm ba bi mooy wasiila nga xam ne kenn ci jaami yàlla yi moo ko yeeyoo comme nañ leen ko waxe woon démb ca moo di ne ni kenn dong moo yeeyoo allaaxira ñaan yàlla kooku yonent yépp dañ ko puusante puusante ba baa mu yegsi ci moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana allaha wasiila boobu lañu waxoon ni kenn ci yéen bu déggee aji nodd jay nodd ngalawaay bu noddkat bi ne allahu akbar allahu akbar na wax la mu wax ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah mu ànd ak moom ca yooyee buy wax hayya ala salaa hayya ala alfalaa mu wax laa hawla wala quwwata illa billah moom allahu akbar allahu akbar mu ànd ak moom laa ilaha illa allah mu ànd ak moom gannaaw ba mu ne na nga julli ci man la gën a gàtt allahuma salli ala muhammadin wa sallim gannaaw ba nga ñaanal ma alwasila la gën a gàtt mooy yàlla yàlla na nga may yonent yàlla muhammad alwasila looloo ci gën a gàtt doonte ne ni soo amoon koo xam ne jege na la mën na la sax wala mu bindal la ñaan ga ca yonent bi alayhi salaam joxe muy allahuma rabba haadihi daawati taamma wa salaati alqaa'ima aati muhammadan alwasilata walfadila wa baasu maqaaman mahmudan allazi wa atta ca mooy yàlla yow mi nga xam ne yaay boroom woote bu matali bii ak julli gi ñu nar a taxawal yal na nga may yonent yàlla ba la nga xam ne mooy jokkoo ga gam yi nar a jokkoog yow yowmal qiyaama may ko it place bu tedd ba nga xam ne moom nga ko dig nga xam ne kenn doo nga fay taxawee ci say jaam yonent bi alayhi salaam nee na ku ma ñaanal lii de yowmal qiyaama dana dagan ci ma ramm la ci kanamu yàlla gis ngeen loolu yonent yàlla muhammad doo nga ko yeyoo am na beneen shafaa beneen ramm mooy bu nit ñépp génnee ba dem bunt aljanna dañuy ñëw fekk bunt yi tëje suñu borom yàlla dañu seetaan ba mujj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy dem avancé fëgg buntu àjjana yi gardien àjjana yi ne ko kan la mu ne man la Muhammad ñu ne yow lañu yàlla santoon bu ñu ubbil kenn ku dul yow kon ñu ubbi buntu àjjana ya ña ca yoo dugg daal di ciy dugg yal na yàlla boole ña ca ñooñee mbokk waxoon naa la it ne yonent bi alayhi salaam dana am ak ràmm gu muy ràmm ci xeetam ci ñoo xam ne daañ tabbi aljanna kenn du leen xisaab ràmm yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dong moom la ñeel sallallahu alayhi wa sallam dana am nag yeneen ràmm yu yàlla tere leen ci ay jaamam bokk na ci ni ma la ko waxe woon démb mooy ñoo xamee ni nii dañoo waroon a dem sawara ñu ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala yóbbu leen aljana ñooñee yàlla da mën na koo tereele ay yonent ay malaaka wala ay nit ñu baax gannaaw ba dana am ñoo xamee ne nii tabbi woon nañ sawara ba pare yàlla tereele ay yonent ay malaaka ay nit ñu baax ci ñu ñaan ko mu génn leen ñu yóbbu leen aljanna noonu it la ñuy ñaanee yàlla yëkkati daraja yi ci biir aljana noonu it la yàlla jagle la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla woyefal mbugal ci lenn ci ay jaam yi nekk sawara ka ca gën a siiw mooy baayam bi abi taalib yeneen ci bi alayhi salaam nee na dana ñaan yàlla ñu yëkkati ko teg ko ci kaw sawara sawara mel ci moom ne ay dàll bu ko defee yuuram ga di bax loolu mooy la gën a woyof mbugal ba nga xam ne moom la waa sawara di am te loolu ci ràmm ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw ba it yàlla dana sant ay malaakaam sant ay yenentam sant ay nit ñu baax ñu ñaan ko ña nga xam ne ñooy def kotu bakkaar ya nga xam ne amoon nañ ngëm yàlla wéetalu nañ yàlla waaye nag saxoon ci ay bakkaar ba dee ca ñu mujj leen a génne sawara gannaaw diir ba nga xam ne moo soob yàlla subhanahu wa taala mbokk li ma lay wax lépp maa ngi lay wax ne dana ci am ay ñoo xamee ni nii ay nit ñu baax lañu ay wali yu yàlla yoo xamee ni nii yàlla dana leen terale ni yéen may naa leen ngeen dem ñaan ma ma ràmm sama jaam sàngam loolu nag moo ko tax na lu bari ci doomu aadama yi daajeel ni kii ne ah man day suñu saar laa yaakaar sama yaakaaru àdduna ak àllaaxira kay ne man man suñu sow laa yaakaar keneen ki sañuy sàmb lu waral loolu mooy jàpp nga ne yowmal qiyaama comme mooy sa yaakaar yow boo ñëwee say mbir lu mu jafe-jafe dana taxaw ci kanamu yàlla ràmmul la te loolu it ñi ngi koy wax ci la nga xamee ni nii di ko xoole li xew ci biir suuf sama benn xale wala boog sama benn doomi ndey bu ñuy wax Moustapha Cissé dafa may nettali nee na daa ànd ak nijaay ji ñu dem ca banque ba banque baa ngi fees del waaye nijaay ji am kum fa xam bi mu ko téléphoné rek kooku génn dajeek ñoom jël seen dossier traité ko defuñu fa dara génn banque bay dem bi ñuy dem nag mën na ko gis nga Moustapha yéen da ngeen di xale rek waaye boo gisee sëriñ si ñu gëm leen yaakaar leen yowmal qiyaama gée ñu jëm xam ngeen ne mbir yi ñàng na lool looloo tax ñu yaakaar sëriñ si gis nga kii lim ñu defal ah dem yomal xiyaamit am koo fa yaakaar su ko defee mën na laa defal lii mbokk lii mooy li ëpp ci doomu aadama yi dañ gëm waaye nag mbokk tubaab bi danaan comparaison n'est pas raison lënkale ay mbir bokkul mbokk yomal xiyaama ak maandute moo fa am muy benn yomal xiyaama sëriñ buy liggéey ca biir employé nguurug yàlla ga amul sëriñ boobu nga yaakaar yomal qiyaama problème bi li indi ci banque bi moo ko indi ci banque bi ca mooy yéen ñépp ay bokk dossier yomal qiyaama yéen ñépp a bokk lijjanti yomal qiyaama kon ñoom duñu ay employé comme ni mu nekkee employé banque bi deuxièmement suñu borom yàlla mbokk mooy borom maandute yomal qiyaama ku ne sa àq ngay jël doo jël mukk àqu keneen yii yépp mbir la yoo xam ne lu jar a bàyyi xel la su ko defee mbokk ak rammu am na yal na ma yàlla boole ci ñiy ramm yowmal qiyaama yow mi may déglu yal na la yàlla boole ci ñiy ramm yowmal qiyaama ca wallaahi boo sellalee sa pas-pas sax ci jaamu yàlla góor nga wala jigéen yàlla mën na laa terele nga ramm lu bari ci say mbokk ak ci say wëllëri yowmal qiyaama loole mi ngi noonu ngëneelu yàlla la yàlla koy jagleel ku ko neex looloo tax yow jullit nga la waay gëmal ne suñu borom day moo ñu wax ne qul lillahi shafaatu jamia mboolemu ràmm yàlla kese mooy ka nga xam ne ci loxoom la nekk ci ndigalam la nekk borom bi laaj benn laaj ca aay bi gën a tedd ci alquraanul karim gën caa màgg muy ayatul kursi man za allazi yashfau indahu illa bi izni ma yowmal qiyaama kan moo ñeme taxaw ci kanamu yàlla muy yenent wala malaaka naan ko yàlla baalal ma sàmba wala baalal faati lu dul ne yàlla ka jëkk jox ndigal na ko ñaan ma ko loolu kenn ñimewu ko looloo taxit borom bi subhanahu wa taala dolli ci ne wala yashfa'uuna illa liman irtada malaaka yi gën a tedd dëkke kaw asamaan suñu borom yàlla nee na du ñu ràmm lu dul ko yàlla gërëm kon moo ko ràmm day am na yowmal qiyaama waaye nan lay demee ràmm gépp yàllaa ko moom qul lillahi shafaatu jamia moom may xool ku ko neex ci ay jaamam ay yow fat caam yow de sa jaam la sama jaam nga boo xam ne gërëmoon naa la wéetaloon nga ma saxoon nga ci samay ndigal gis nga ñee safara lañ waroon a jëm léegi terele naa la nga ñaan ma ma yóbbu leen aljanna su ko defee fat caam taxaw ci kanamu yàlla ay yàlla sama mbokk ñii maa ngi lay ñaan ci say ngëneel nga tàbbaleen aljanna ñoom ñu jël leen yóbbu ajjana muy teraanga bu rëy bu la yàlla defal ci yomal qiyaama nga nekk sabab duggal ay nit ajjana mu woo Moodu Sow Moodu Sow yow day sab jaam laa boo xam ne gërëmoon naa la lool léegi nag xoolal ñee nga xamee ni nii ñoom dañoo waroon a dañoo nekk ci biir sawara wa dama bëgg nga ñaan ma ma génne leen yóbbu leen ajjana Moodu Sow ñaan leen ñu daal di leen yóbbu aljanna mbokk même bu ñu demee ba biir aljanna suñu borom yàlla mën na woo bilal caam ne ko ay bilal caam gis ngeen sa mbokk yi nga tabbal aljanna waaye ñaan ma ma yëkkati seeni daraja yóbbu leen firdaws bilal caam ñaan yàlla mook mbooleem ña nga xam ne yàlla dogaloon nañu bokk ci ñaan googe ñu ànd jóge ci àjjana yu suufe yi dem firdaws mbokk lii mooy ak ramm yowmal qiyaama su ko defee ràmm googee doo ko ñaan mukk yonent yàlla muhammad doo ko ñaan mukk abubakar doo ko yaakaar mukk ci omar ibnul xataab yàlla dong nga koy yaakaare ëllëgit yàlla dong lañ koy sante keneen kum mën a doon ndawal yàlla bu yàlla yónnee ci ci ci yow looloo tax li ngay ñaan la nga mën a wax mooy allahuma shafi rasulaka fiya ay yàlla yal nag ma boole ci sa ñi nga xam ne sa yonent yàlla da leen di ramm yowmal qiyaama wax de manière générale yàlla yal nag ma boole ci ñi sa malaaka yi di ramm yowmal qiyaama yàlla yal nag ma boole ci sa nit ñu baax ñi di ramm yowmal qiyaama amaa nga tëb ne yàlla yal nag ma boole ci ñi imam Hassan Sarr di ramm yowmal qiyaama duural nga duur wu rëy ndax kan moo la wax ne imam Hassan Sarr dana ramm yowmal qiyaama ku la ko xamal ban preuve nga ci am amoo ci benn preuve loolee kon ñu bàyyi ko xel bu baax di mbir boo xamee ni nii ngallawaayi na ma leen ko waxee xawma lu gën a yàq diine doomu aadama yi lu dul lu mel ne gëm nga nga xam ne ni dañ ko war a gëm muy ràmm am na yomal qiyaama waaye malheureusement nañ ko jàppee ak nam nar a demee loolee bokkewul noonee mbokk mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax échantillon bi ma la ciy mujj a jox mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na da ngay gis yowmal qiyaama waa sawara dañuy togg mujj ñu tiit dégglu na bum ñoom ñëpp ñu geestu gis koo xam ne butit yaa nga tasaaroo mu doon kilifa diina gu rëy waa sawara na ah bisimillahi jàmm ñun day ñi ngi doon rëccu ay waay aka neexoon ñu topp diw aka neexoon ñu topp diw kon tey du ñu dugg sawara mu ne leen waaw li ngeen wax di dëgg la su ngeen ma toppoon day du ngeen dugg sawara waaye man mii day la ma leen doon digal dara laa ci daawul def la ma leen doon tere lépp lay def ca loolu mooy tey li ñuy tudde borom sañ-sañ moo tax gaa yi xam ngeen ni am ngeen diine ji ñu ci jox ne ñooñu ñoom borom mi may lañu suñu julliwul seen yoon néew ci bu ñu warul seen yoon néew ci dañoo am may dañoo am jegle ndax xam ngeen am na ñoo xam ne nii bu leen neexoon takk quatre-vingt-dix femmes dañ naan ah loolu day ñoom boroom yi sañ-sañ lañu mi ngi noonu ba am na kilifa gu mag nee nañ dañ ko ko laaj mun a ñaar doo nga koy def de weesu ñeenti jabar moom ñaaru koy def ab saay-saay ak boroom sañ-sañ mbokk boroom sañ-sañ ci xeet bi kenn la woon muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla waxoon xaalisatan lakka min dunil muminin yow laa jagleel lii la taxoon may wax rek mooy bari na ko yaakaar ci àdduna turam wër àdduna fekk ne amul ngërëmal yàlla jalla wa ala mbokk ña yàlla gërëm allaaxira lañ koy xam kon ramm googee yaakaar ko ci yàlla subhanahu wa taala yaakaar ko ci ngëneelam képp koo xamee ne nii tamit jàpp nga ne ne dana ramm ca mooy ñañu tënk waxal malaaka yi waxal yonent yàlla muhammad waxal gaa yu baax yi waaye bu ca tudd ma sàmb bu ca tudd ma demba ndax amoo ca preuve lii day ñaan la goo xam ne moom boo ko ñaanee yàlla ci mbaaxam mën na ko nangu yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ay yonentam di ramb ay malaakam di ramm ay gaa yu baaxam di ramm bal yal nañu yàlla boole ca jaamam ya ñuy tànn ñuy ramm seen moromi jaam innahu ala kulli shay'in qadir mbokk yi gannaaw ba ñu waxee la nga xam ne nag mooy jëm ca ramm googee ñu mujje nag la nga xam ne mooy mujjeekaay ba mujjeekaay ba mooy lan doomu aadama yi yowmal qiyaama ci ñaari kër lañuy sax xaalidin fiiha abada mbokk kër gu jëkk googe moom mooy kërug aljanna lan mooy aljanna mbokk aljanna jooje bu ñu xoolee suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñu koy melal ci palaas yu bari ci ab téeréem bokk na ca loolu fa muy waxee ni saabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaa'i wal ard uiddat lil muttaqin suñ borom yàlla mu ne jëkkante leen ci seen njéggalug boroom ak ci àjjana joo xam ne yaatuwaayam moo gën a yaatu asamaan yi ak suuf mbokk jullit tey jii la nga xamee ni nii moom mooy scientifique yi suñu borom yàlla lim leen won ci la nga xamee ni nii moom mooy asamaan yi bu ñu ko doon méngale a ak suñuy xel suñuy xel mënu koo takk mbokk xamal ni pepp suuf pepp suuf bi gën a tuuti bu ñu ko doon méngale ak tey jii benn désert bu toll ne désertu Sahara lii nga xam ne mooy suñu suuf si ñu toog représenté wu ko ci jawwu borom bi wallahi ci mi ci boo laajee scientifique yi nga demoon ci désert bu yaatu doon des centaines de milliers de kilomètres benn pepp suuf suñu suuf si représenté wu ko ci nguurug yàlla ki loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégeel ñu ni kay mujj dugg aljanna duggoon sawara yàgg fa lool ba mujj yàlla génne leen ñi kay mujj dugg aljanna gën faa néew la lim am dana am ngóorug àdduna gi lu ko ëpp fukki yoon ci biir aljanna loolee mbokk ma mooy aljanna suñu borom yàlla subhanahu wa taala bégal ñu fa ne bégalal julit ñi ca àjjana yoo xam ne ma nga leen di xaar ñu nekk ci seen biir pale ya dex yee daw ci seen suuf lépp loo xam ne façon meññante la buñ demee daañ ko fekk foofee ñu nekk faak seeni soxna yu taaru yu làpp ya seeni borom kër yu taaru yu làpp ya loolee mbokk moom mooy la nga xam ne nii waa aljanna la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la nga xam ne mooy fa ñuy teg benn fit mooy benn flèche ci ak ci biir àdduna day mooy lu tolloog à peine un mètre ci àjjana nee na moo gën àdduna ak mboolem lu nekk ci biir àdduna mboole seen yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na benn jigéen ca waa aljanna bu doon dañoo génn ci kaw suuf daañ feesal kaw suuf yépp ci ak leer ca xet ga muy àndal dana ubali waa suuf yépp ci bànnee xet goo xam ne ni dana muur suuf yépp loole mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni kóoroon ba nga xam ne moom lay teg ca boppam rek loolee di la muy taarale ca boppam valeur am moo ëpp àdduna ak di ci biiram ca xuurul in yooyu nga xam ne ñoo nekk aljanna yowm alqiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñoom ci seen bopp dañuy yiimu ci jigéen ñi doon jaamu yàlla ba tabbi aljanna suñu yaay ummu salamata laaj ko waaw xóor yooyu ñu leen yàlla taarale waaw ñun bu ñu demee ajjana daje fa ak ñoom ni muy demee yonent bi alayhi salaam ne yéen ñi doon jaamu yàlla ci kaw suuf ba tabbi aljanna su ngeen demee day ni kaw tappi gën a rafete suufu tappi noonu ngeen di gën a rafete xóorul iin yooyu yàlla di tagg nga la way fat caam bàyyil xeesal bi bàyyil greffage yi nga xam ne ni yaa ngi koy sànni sa bopp yi di ko jëndee ay cheveux naturels ak yu kenn xamul bàyyil la nga xam ne sa taar bi ngay génn guddeeg bëccëg ci góori jàmbur yi da ngaa bëgg a taaru rek fexeel dem ajjana da ngaa bëgg a rafet rek fexeel dem ajjana mooy taar bi nga xam ne du jeex day sax ba faw mi ngi noonu mbokk àddina ji mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam tënkal ñu ko ci lii mbokk àjjana mooy lan ngalawaay tënkal tënk boo dul fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom yàlla day moo ne aadadtu li ibaadi saalihin maa la aynun ra'at wala uznun sami'at wala qatara ala qalbi bashar maa ngi waajal samay jaam loo xam ne bët musu koo gis ci kaw suuf xoolal lii feeñ ci télévision bi ci Hollywood lii feeñ ci science fiction nit ñi di ko xalaat ak a def kenn musul gis lu mel ne aljanna kenn musul dégg lu mel ne aljanna te may mën ngaa dégg ku naan ñu ngi waajal ay château yoo xam ne nii un kilomètre demi lay doon kaza wa kaza kenn mënul dégg lu mel ne aljanna kenn mënul imaginer ba xalaat lu mel ne aljanna xale yi jàng xam nañ muy science fiction science fiction mooy ngay xalaat ay mbir yoo xam ne amagul ci jamono mais ngay jàpp ne mën naa nekk yonent bi alayhi salaam nag nee na kenn mënta xalaat ba xalaat ba mel ne ajjana ajjana dem gis rek la beneen mbir bi yonent bi alayhi salaam ne boo bëggee comparer xam lan mooy bànneex yenn ajjana mooy da ngay dem géej nga jël sa baaraam samp ci géej gi yëkkati ko li takk sa baaraam bi mooy mboolem xéewal yu yàlla mas a wàcc wàcc àdduna depuis bay aadama ba ba àdduna tukki mooy méngoog loolee takk ci sa baaraam cim ndox amma aljana nag mooy la des ci géej gi mbokk ndax lii xel mën na koo jéem a nattale abadan looloo tax mbokk ajjana ngoog moo ñu war a jaral lu nekk ci àdduna ñu ñàkk ko ngir tabbi ajjana moo ñu war a jaral lu nekk ci àdduna ñu risqué ko kaso la dañ ñoo rey dañ ñoo génne dañ ñoo fase lu nañu def ñu ko ngiree loolu nekk na loo xam ne lu ñuy yóbbu aljanna mbokk aljanna ngi noonee suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana bàyyi ay jaamam ñu dugg bànneexu fa ànd ak soxna ya ak borom kër ya wildaanul muxalladoon malaaka yi dugg ci ñoom ba nga xamee ne nii man di nañu ca bànneex yi tar suñu borom yàlla nuyu leen salaamun qawlan min rabbi rahim ñu digg baatu borom bi jalla wa ala borom boobee ne leen waa ajjana ndax gërëm ngeen ñu ne ko ay suñu borom ndax ñun duñu gërëm defal nga ñu loo xam ne suñuy xel ak i xalaat mosu koo xalaat mu ne waaw xaaral ma dolli leen ma suñu borom lu ñuy dolli borom boobu subhanahu wa taala dindi kiiraay yi doxoon suñu diggante ak moom yépp ñu jàkkaarloog moom ca taaram bu tedd ba moom mi nga xam ne moo bind taar moom la borom bi di wax naan wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naazira keroog la ñuy gis ay kanam yu naat yu bég jàkkaarloog seen borom di ko xool su ko defee borom bi dana supp waa aljanna nga leen ay yéen waa aljanna bis ni ki tey gërëm naa leen dootuma leen mere ba faw lu leen neex def leen i'malu ma shi'tum lu ngeen def neex na ma mbokk lii moom la borom bi di wax naan li lazina ahsanul husna wa ziyaada ñi nga xam ne dañoo rafetaloon ci kaw suuf dana leen ñeel ak rafetal ca mooy aljanna wa ziyaada boole ci gis seen borom seen borom yàlla gërëm leen loolu nag kon mbokk ajjanaa ngi noonu nu ñuy def ba tabbi ajjana ni ñuy def ba tebbi àjjana day yomb na ci ku ko yàlla yombal ca mooy li lazina ahsanu yàlla yónni nañu ab yenentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu indil ñu alquranul karim ak sunnaam képp koo xam ne rafetal na aw jaar ci alquran ak sunna dana bokk ci ñay wàcc ca ajjana jàkkaarloog seen boroom waaye képp koo xam ne teggi nga alxuraan ak sunna danga wàcc sawara sax dàkk ci sa mbëgalum boroom yàlla jalla wa ala yow mi ñu bind bind ajjana yal na nga ñu yombalal lay tax ñu tabbi aljanna yal na ñu jéggal yal na ñu yërëm lépp luy étape bu jafe suñ digganteeg ajjana yal na ñu ko yombalal lu ciy fitna ak mbugal yal na ñu ko teggalal yal na ñu booleeg suñuy waajur ak suñuy njaboot ak suñuy xameeg suñuy wëllëri ak mbooli mi julit ci sa njéggal ci sa yërmaande ci sa ajjana yi wàcc yu kawe ya defal ñu ñun ñëpp firdawsil aala muy sa wàccuwaay ñu dëkk faak sa yeneen taba ak njabootam dëkk faak anbiyaa ya ak siddiqina ak shuhadaa ya ak saalihin wa hasuna ulaika rafiqa mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk julit yi ñi ngi ñaan yàlla dajalewaat ñu fi suba ak jàmm ci keppaarug ramadan lu jiitu loolee yal nañu yàlla may aafiya fi dunia wal axira yal nañu yàlla teggil mas mi nekk suñu kaw ñi ci faatu yal na yàlla defal leen àjjana seen wàccuwaay ña ca nekk ci feebar yal na yàlla yëkkati leen ña ca nekk ci jafe-jafe yal na yàlla xeccali leen ci jafe-jafe yooyee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu